ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu bunt ci lislaam sëriñ Touba Khadim Rasoul di ñaanal suñu sëriñ sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér sant yàlla bu baax fekkewaat bés bii tey mooy ñëw ci fulk bi niñ ko daan defee at yi weesu ànd ko ak sëriñ Muntaxa ren ñu ànd ko ak sëñ Alaaji Fàllu ak ak rakkam yu baax yi ñëw comme niñ ko defoon rek ci tànku taalibe ñëw ànd ak moom fulku bi ñaan ñaanal njaareem ñaanal réew mi ñaan jàmm ci àdduna bi donc ñuy sant yàlla baax bi ñu mayee ñu teewaat ko tey di ñaan yàlla ñu teewaat ko ay ati at te lépp luñ fi ñaan mu nekk njëriñ ci Sénégal nekk njëriñ ci jullit yëpp nekk jullit ci njëriñ ci àdduna bi tànk yi daal tànki taalibe la tànki siyaar la tànki euh, sàkku ñaan euh, wax nañ sëriñ bu ñaanal ñu ñaanal président de la république son excellence Macky Sall li nga xam ne moom la naal ci dëkk bi ci Sénégal yàlla may ko ci ndam lu kawe njortam ñu ngi sant ñëpp di siyaare sëñ bi bu baax a baax di sant bu baax a baax di ñaan yàlla at yi di ñëw ñu waat ko bu baax incha allah rabbi jërëjëf jërëjëf sëñ Abibou euh, comme euh, yow yaay euh, loxol sëriñ bi nu bëggoon la laaj tuuti rek sa diggante sëriñ bi ak ki nga xam ne moo fi ñëw tey mm-hmm. muy ministre de l'emploi monsieur Dame Diop mm-hmm. nu xam ko ci doomu njaareem mu yàgg a liggéeyal njaareem yàgg a taxaw doomu njaareem mm-hmm. ba tey ji président jël lu toll nii euh, teg ko ci loxoom mm-hmm. euh, te njaareem suñ koy wax saa su nekk rek dañuy wax naan njaareem euh, dafa xaw a dellu ginnaaw tuuti mm-hmm. waaye gis nañ ne doomu njaareem yi ñu ngi góorgóorlu ñu ngi bay seen waar ci li nga xam ne moom lañ seq ak réew mi ba yàlla jox leen ci ndombal tànk yu tey yu toll nii kon ñu ngi lay laaj tuuti rek nga wax nu ci diggante daam ak sëriñ bi. di monsieur le ministre di nuyu mboolem ñu ànd ñëpp daam moom ñu ma wax ñu bari tey xam ñu xam ne ne moom jarbale ci kër koo xam ne sëriñ Sëriñ Tuubaa rek di daam sa sa jarbaat la ndax sëñ Seex Joro moo juru maamam kon na kon na ngeen xam ne moom dafay ñëw yi tànki taalibe tànki ministre ñi nga xam ne ñëpp fii fii fii ma tax di wax ak kenn gënu ndax fi bokk mm-hmm. kon ci këram la ñëw kon nag nit ku bu ñëwee ci këram euh, doon doon doon doon ab taalibe doon doomi doomi njaareem yàlla yàlla dogal mu mu nekk ci loo xamante ne eh, ñëpp yéer nañ ko ba koo gis doo ko teg sax nii la da nga naan kii ak ak ak akub taalibe la. bi mu bi mu duggisee ci fulk bi fa mu njëkkoon ne fa la bëggoon toog. kon nga xam ne ñoddiku daraja. waaye gis nga daraja boo koy ñoddiku day fekk mu jomm la. waaye nag boo ci boo ci juddoo màgg ci ba toll nii. doo doo doo ko jàpp muy dara kon lii jëmmam ji di eh, ko yàlla dogal ci moom mm, neex nañu lool bég nañ ci lool suñu xol seet na ci te waxtu wu ci amee ndam nag ñun ñoo ci am ndam liggéey bi ñu ko président Macky Sall dégg ñun askanu murit yëpp rawatina waa Njaareem gi nga kon nag waa Njaareem nag da xam ne eh, yéen kat eh, cëru ngeen seen cër ngi nii sédd nañ leen kon te kuñ sédd nag da fexe ba lañ la sédd bu ëllëgee ñu dolli la kon nag bu ñuy bu ñuy bu ñuy doole daam ëllëg ci ñun ñii la ci ñun ñun waa bi ñii war a njëkk bàyyi ko mhm. ñoo ñoo ko war a jàpp ci liggéey bi muñul ko dimbale ko suturaal ko jàppale ko te lu lu ndam lu am ci àll ba nag ndamul waa njëriñ la mbégte bu mu am ci àll bi nag waa njëriñ la kon na ngeen te ngeen ko xam te te te te te jàppale ko te muñul ko te dimbale ko te ko te xam ne day doo ko tàmbali nit ku doo ko tàmbali nag li gën ci moom mooy nga mu muñul ko may ko ab diir may ko ba dal mhm. nga jàppale ko ci xalaat jàppale ko ci yitte jàppale ci bëgg-bëggam bañ ko sal benn yoon waa njëriñ yëpp nañ xam ne suñu doom la bu jëmee ci kanam ñun la jëmal ko yam buñ ko fakasal benn yoon ci bépp anam nag laa wax ci wax ak ci jëf ak ci xalaat ak yëpp nañ xam ne bu amee nag ñun la amal ndam lii kat kum doy ko yoon lu ko kenn doo dee pour que tal na président de tànn sa sa saw askan tànn sa mbokk dénk la dénk dénk dénk ko parti bi mu ko dénk ci ci ministère yi muy ministère bu am doole kon nañu ko jàppale mu mu réussir mu am ndam ci kon ñu woon ndam ci bépp liggéey lu baax yow mi bàyyi ko ci moom di deretam di sox kom yàlla yàlla nga am nawe amee ci lépp ci lépp loo dugg nag waaleykum salaam wa rahmatulah